ko yóbbu faa. Erso la Erso. Ila Ousseynou Diouf un un. sàq mi rek. sàq mi. loolu ah. waa ñu sa raxasu sa si bool bi de. loolu bool naa ko. constatant wu dëgër rek. sàq mi moo jë. loolu sama rek. kenn du loolu. sàq mi oh. bu ma ñëwee bu eh. eh. eh. yaa seen de. saw mu toog si boolum njaay bi. titi basaanum njaay bi lekk

Ado Ado day nekk suñu añ bi mu jeexul tàkk. dama doon xool ndax ndax mu xoolal lool. ba mu mënoon a nekk. Ado yow nga lekk suma yàpp mbaamu. bon. Ado yàpp mbaamu lu mu seere. ku. ma ne ma dem ba ma dem ma ñëw ma togg yow nga lekk kon kuux la kuux du ceeb la. Ado yow nga lekk kuux. soo soo xam nga naan xuux la hein non xuux la e adda xuux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 59 75. Notre site internet www.cefas-du6sénégal.com. cusku mooy gel. gel waaw. loo bëgg a wax foofu. mooy gel daal gel mooy cusku daal. ah yow da ngaa neex yow. di ko waxee nii mu ne cusku. cus. ah mais kawal nee naa la gel. yow neex nga de ardo. yii maaraam sukkar. ah lem maa ko dàq. ay mood yu neex la yor. ah man kay mood yu neex laa yor ay mood yu neex ay mood yu neex laa yor kay. mboot kay wallaay naka cigin cangan yi nag. ah cigin cangan. cigin cangan. cigin cangan. yow laa cigin cangan. ah ok xaw ma cigin cangan yow kanaa doon naan dit. ah man de nante laa waaye xaw ma ay. cigin cangin nandit nga cigin cangin. nandite laa. ah waaw waaye xaw ma mooy yow da ngaa tooy. da nga <laughs> nekk <laughs> mooy cigin cangin cigin cangin. ah yow. waaw <laughs> ah. yàlla dundal waay yow. wallaay wallaay loolu ay mots farans la. moo tax it farans yi ñoo koy wax farans ñooy wax lool. da ngaa neex yow. wallaahi maa raw maa raw lépp. yow sukkar maa gën a neex. dégg la <laughs> dégg la def kii wallaahi wallaahi wallaahi. kenn du yow. wallaahi. sama xarit. mbéy rek. yaa ma gën a xam. Hmm? koor gi ñëpp di toog seen kër mu topp napp yeeg sànni jam rey fu ne mu dugg fa. Ah. mu ne maa jox ma. Ah, kii dox rek dox waaye wuy sa waay ana. njaay laal damm laalu damm. waaw génn na. jëm ni ma ko bañ mooy mel ni fin de noonu. <laughs> yaa yàq sa xarit de. non kii dama ko xam de. bu yàlla def ba wër <laughs> moo ma def signature am def ko ah, du moom de. du moom mooy yow. kooku bàyyi moom <laughs> waana buur. waana dem na. leer na ma ne téeméer la fi koor gi xaw ma kan mooy xew tudd tudd tudd tudd dem na. loolu lay wër moom bu tudd rek lay wër moo koy xam naa ne saa bu tëddee mu ngi ñaan yàlla nit ëmb yàlla nit ëmb yàlla nit ëmb rek la waaw loolu moo koy doxal loolu lay wër bi waaw gént rek gént rek loolu lay wër rek waaye am daal yow fi mu toll ñëpp dem nañ de ak yow ah. ah ah kon wéet nañ de wéet nañ wéet nañ wéet nañ moom eh. <laughs> Eh, eh, ah yaa ngi cakk de gis na rek. ah koor. kon wooruma. waaw ma toog fii yaa ma gën a xam. dàq sama koor nànk. yaa ngi koy dàq de. ah naa yës na de. daa du. oh kon maa nga ca. laa ilaaha illallaah. yaa ngi pentiir rek. maa ngi pare naa ci. moo ñama ñama rek yaa ma gën a xam. caa yàlla caa waaye yow sa bii kii la de. affaire bi kanaa bañ fi nekkoon. lan. c'est lii dañ ñu bañ la wala. li mooy récontant. ñàkk a kontaan. Ah. sàkkar yàlla bi. ah sàkku si yàlla. waxal leneen. Ah. sàkkar yàlla. sàkkar yàlla. waxal leneen. <laughs> nice na de. merci. lii de gannaaw boobu dugalal làmmiñ di ko def nii. Eh. riit riit. yow ah. <laughs> naa ñu wéet kay moom <laughs> bëgg naa ñu wéet de. li laa xam naa ku wéet ak yow. dina gis dara de. maa la ko wax. te man xam nga loolu laa bëgg. man dama bëgg di wéet ak yow. may tampaloo ak yow bul mu may dara deel ñàpp sama kool déggal lii dee ma riit mballe déggal def ma comme ambul góor la illa maa la ko wax koolal ñuus ma góor ñuus ma durwaan bul ma may dara du ma may dara waaw xool ci paa yi yaa fi dégg yaa gën a taxaw. waaw yaa gën a grand. waaw dama lay jël def la sama paccaru ah! sama guwaanaa. sama kokoraat kër gi waaj. Eh. <laughs> waaye ñoom sa tool yow. wéetu bu ñu nga wax moo neew. <laughs> li nga wax neew rek. mu sama jaanu cuur kii mu ngi naan may may may. <laughs> maa ngi naan tàmbali nii li li li li li li li li man boo toog doog rek paa yi na ko bu jël kenn buur day tiit guddi gi day mm-hmm. njaay day sawlaal sawlaal waaw du fanaan wax moom dangay mbalak yii sawlaay def baaxul booy tëddoo nag moom fii waxtaan ak moom une minute saw na la buur moom day tiit di yuuxu waaye saaba daay waaye aay waay ngente ngente la xam nga géew léegi léegi yàlla def na waaw yaa yor xar yi. waaw yor bëy yi yor nag yi. waaw soo jéeri borom nag ak mii damay ah. ànd ak yow lonk ak yow lu nii seen xol di sa kenn du bu dara. <laughs> yow da ngaa eh, ëppal nag yow nag da ngaa ëppal nag. commencé bu <laughs> yow kontaan te yow it tey dañoo wéet. wéet na ah. naan wéyum wéyum ngoon guddi. waaw dinaa ñëw si noonu noonu ngay ñëwee wala. ee bayo jikkumxanañi léegi léegi léegi i kenn du yow waaw waaw cent franc li xam ne café la doy xoola yow doo kii